وواجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي يأتي من الأمم على نبي سلام ربنا دائما عام دوم مالك أمل مرام له العلامات قال إن أعظم ست أعمال سنتي من جملة الإمام على نبي مالك رون كان وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقي ginnaaw bi ñu mosoo ci seytaane ñu ngi sant yàlla bu baax di julli di salmal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne asalaamualeykum tey jii ñu ngi fii ci daayira maam du lamin Diène ci biir daaraam ji ci biir këram di ko wooteel bi bu rëy boobu nga xam ne amul lu dul moom ci ndigalu Pape Abdoulaye Ba di président coordination daayira islamiyati ak tijaniyati ak Papa Djibril Diène di xalifa kër gi yàlla na yàlla dëgëral leen jàppale leen ci bark yonent bi ci ndigalu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane xalifatul am tarixatul Tidiane usulul malikiya ak rakkam ju tedd ja Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak mboolem njabootu Seydil Hadji Malick ci seen ndigal ñu ngi leen di woowaat ci seen bis bi nga xam ne mooy bisu gàmmu maam Amadou Lamine Diène bi muy def ci Gueule Tapée te di la 26 avril incha allahu taala di samedi bii ñu dëgmal ndéem sob na yàlla ñu ngi ci woo mboolem ku ñu seqal tarbiya ku ñu seqal xadra Seydi El Hadji Malick rawatina xadra Cheikh Seydi Aboubacar di ci woo waa dayratul kiram dayra Gueule Tapée regroupement des Tidiane ak mboolem coordination des dayra Tidiane dakaar et banlieue di ci woo Abdou Sarr Paye ak fédération de dayra Dakar banlieue di ci woo président Mame Ousmane Samb président Koskas di ci woo dayra Wakam Ngor ak mboolem fu daayira boo xam ne seq nañu yow tarbiya seq nañu ak yow kër Seydil Hadj Malick ñu ngi lay woo ci bis bi di ci woo njabootu Mame Mbaye Diop nga xam ne seen lépp fii la te ñu nit suñu lépp foofu la ñu ngi leen di woo ci gàmmu gi nga xam ne amuñu lu dul moom di ci woo koo xam ne kenn la ci kër gi am na cofeel ci kër gi am lépp ci kër gi di kenn koo xam ne ku ñëpp xam la ci réew mi di kenn ci doom yi di kenn ci lépp di Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Seck nga xam ne moom lépp daayira bi léppam daayira bi la ak njabootu maam màgget Seck yëpp di ci woo képp koo xam ne daal di imaam yi di jël ci imaam Babacar Sadikh Ndoy di ci jiitalit imaam Lamine Diouf di ci jiital imaam Sekk Ndiaye Pouy ak imaam El Hadj Yoro Seck di ci jiital mboolem imaam yoo xam ne bokkoon nañ def tarbiya fii di ci woo waa réew mi yëpp mboolem koo xam ne yaa ngi bégee wala ngay dundee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay woo ci suñu bis bi di ci woowaa waa diaspora bi yëpp. rawatina it tamit ñi nga xam ne ñoom lañ seqal tarbiya nga xam ne mooy waa koskaas yi nga xam ne lu ñu yëkkati ñoom ña nga ca mboolem koo xam ne daal bokk nañ ak yow xadra Cheikh Seydil Hadji Malick woon nañ la ci bis bi tamit di ci wax nañ nag di daal Serigne Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla dëgëral ko incha allahu taala mooy taxawu gàmmu gi seq ko doomam taalibeem di léppam di xaaj du kenn mbay moom mu alaji mbay donde ñi ñu jiitu sax ci wàllu kàddu wax nañ illa bi ak cosaanu gàmm gi waaye daal liñ ciy wax mooy tey ji fii ci réew mi fii ci ndakaaru gàmm goo xam ne Serigne Abdoul Aziz Al Amin sang bu tedd boobu doomu astukan Marème Salbé jooju mu ngi koy fanaan fii ci ndakaaru gàmm googu rek la ñu ngi dellu it di dugal foofu ci ay kàddu ci turu Papa Djibril Diène ak Baye Abdoulaye Ba di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu jot barkelal jotaay bi defaral ñu ko di Baye Thierno Gueye ak oustaz Abdoulaye Diène moom maam Amad Lamine Diène alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي القرشي وعلى آله وأصحابه الغر الميامين بلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi nii ci kër sang bu tedd boobu di Alxaaji Amat Lamin Jéen di waajal gàmmoom gu cosaanu gu lëw gu yiw gu bari gi barke dale ca la dale ca bokkam ya mu ko àndaloon ca yooyee jamono ñu jële ndigal li ci fa nga xam ne ndigal yu bari ci réew mi fa la fa ko mu dox digganteem ak sang bu tedd boobu di Cheikh Seydi Aboubacar ibni Cheikh Seydi El Hadj Malick ibni Ousmane ridwanullahi alayhim jamian mu jële fa ndigal booba sose ko gàmm gii gàmm gu nag ba mu ko sose ànd ko bokkam yu tedd yooya ku ca mel ni góor ga Abbas Cubb ca Bargny ak ku mel ni Hadji Moussa Seck ku mel ni Baara ca ku ci mel ni góor gi xaajul man Thiaw ca Yoof ak ñoom it gi Aline Diouf ak mag ñu tedd ñooñu ñëpp mu àndoon ko ak ñoom sos lu tedd nii di xéewalu réew mi di xéewalu askan bi di xéewalu bokk gi ñu koy e, amal at mu nekk ci buntu këram fii ci Gueule Tapée di ko màggale juddu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci anam bii ndax ca ba mu koy sos daf ko sosee rek mu mel na na Seydil Hadji Malick ne woon ca gàmmoom ga bëgg naa buñ ko defatee fii ba góor saane ñëpp a teew waaye mu sosal ko askan wi di askanu lébu ak réew mi yëpp nag mu nekk seen rawukaay seen làqukaay ci làqu ci gannaaw yeneent bi gannaaw Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif yi muy xéewal ci réew mi muy dem ba tey ndax bu nu juumul ci dat dat ca gàmm gu jëkk ga euh, maanaam ku mel ni Cheikh Mouhamed Gueye Baara ak góor gi Moussa Seck taxawu woon ko euh, ci ni ñu ko jële ci taarixu gàmm gi euh, ñu taxawale ko noona ba bi muy ñëw ci loxo xalifa bu tedd bi di Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Seydi Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Seydi Alhaaji Malik ibnu Ousmane ridwanullahi alayhim jamian ah mu mu dem ba Uh, yàlla dogalit xat-xat ñëw ba mu ñëw ci loxol mbokkam mu tedd mooma di alim bu mag booba di alxaaji Ousseynou Diène rahmatullahi alayhi ba mu ca jógee nag ñëw ci loxo kii di Cheikh Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amin mu di ko taxawu ba ci sunu jonne maa ne tey yal na yàlla dëgëral ko kattanal ko ba mu yàgg koo taxawoo lool bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي وهب لعبده عقلا حتى يستطيع أن يسلك طريقا لا يضره في مستقبله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله comme ni ko suñu mbokku taalibe yi waxee muy bés boo xam ne bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, fa ni ko suñu wéjur alxaaji ahmad lamin jéen daan doxalee noonu la ko seydil xaaji malik daan doxalee dañ ko daan ubbee ci wàllu alquranul karim di waxu yàlla bu tedd boobu di ko dalale gan teeru leen ca bés ba ba fa tabaarakallaahu buñ ca jógee gan yépp ñëw ca tànt ba eh, ka ko daan def nii xaaju mbay doon yàlla na ko yàlla yërëm ba léegi doomam bu ñuy wax dut kenn moo koy def léegi animé ko ñu dalal gan yi ba sëriñ bi ñëw muy Cheikh El Hadj Abdoul Al Amin yal na ko yàlla yàggal taxawaayam ñamu àndal yan bi fa tabarakallahu yal na ko yàlla woyafal sagal ndax ñépp xam nañu ne amatul benn jot waaye fii ndigal la ci am bu jóge ci góor gi alxaaji ahmad lamin jéen daf koy wax ne man ahmad lamin jéen moo ma ndax mën nga ma téyel sama gàmm ma ko waaw incha allah dinaa la ko téyel ba tax na fa tabaarakallaahu bu amulee benn benn benn ngant yàlla bu ko ngant dëpp moom moo fay teew fa tabaarakallaahu ànd ak ñun ci guddi gi ñu barkeelu comme ni ko mag daan barkeeloo fa tabaarakallaahu ñu ci oo ñëpp képp ku nekk ci monde bi ñu lay oo nga ñëw teewe guddi gu tedd googu ndax fa tabaarakallaahu guddi la boo xam ne ci ndigal la ko El Hadj Ahmad Lamine Diène daan doxalee ñu ndigal goo xam ne nag e fa tabaarakallaahu ñëpp xam nañu ne barke ngi ci gàmm la boo xam ne bu daan am lépp képp koo xam ne yaa ngi ci presqu'île du Cap Vert dañ ko daan waajal du daan fees dell ah, léegi la gàmm yi bari macha allah kon fa tabaarakallaahu eh, loolu la amoon ci ay kàddu buñ ci jógee jox suñu mbokk mi mu wax wax ak daayira yi wax ak imaam yi wax ak ñëpp fa tabaarakallaahu ñi nga xam ne noonu lañ koy doxalee. président Ablaye Ba di fa tabarakallahu ki nga xam ne moo fi nekk ndi eh, yàlla yàlla may wér ak xalifa bi El Hadj Jibril Diène yàlla na ko yàlla may wér eh, fa tabarakallahu ñun ay taalibe la yuy nekk ci seen ginnaaw rek di la ñaanal yàlla di koti koti yoon yoon rek tabaarakallaahu ba àgg tabaarakallaahu fu mag ñi daan jaar eh, ci ndigal nag la waxee xale yaa ngi fii toog ñoom ñëpp ku ci nekk mënoon na taxaw wax wax ji dañ ma ko jox ndax li nga xam ne moom mooy kilifteef rek ñu ni tamit ci kilifteef la ñuy tegu eh, yàlla yàlla sutura réew mi fi yàlla def càmm def ko ci réew mboolum jullit jaayi Seydou bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi dellu di gërëm waa Asfiyahi mi nga xam ne ñoom def nañ lépp joxe nañ seen lu ne ñëw fii tey bokk ak ñun lii defal ñu lii nga xam ne ndaam ñu ngi koy soog a am sax ci wàllu vision ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen ci sant. ñu ngi wooyit gouvernement bi di ci jiital Macky Sall président de la république ak Aminata Touré ak mboolem kuñ ko seqal surtout ki nga xam ne mooy buntu réew mi di ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda di ci woo gouverneur de la région de Dakar Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye di ci woo préfet de Dakar Abdoulaye Diop di nga xam ne moom léppam ci kër gi la di doomu Seck Ndiaye. di Badara Diop ñu ci woo ku nekk daal ci gàmmu gi di leen wax ne daal li nga xam ne daal moo ci des mooy daal le 26 avril incha allahu taala fii ci buntu këru maam Amadou Lamine Diène mboolem koo xam ne seq nañu ak yow xadra Seydi El Hadj Malick bokk nañu ak yow xadra Cheikh Seydi Aboubacar ñu ngi la ci woo di ci woo tamit suñu maire di suñu lépp di suñu yaayu daara di Hadja Seynab Wade di maire Gueule Tapée Fass Colobane di woo mboolem réew mi ñu ngi leen di wax ne daal bis bi seen bis la képp koo xam ne daal jàpp nga ne yàlla la yóbboog jàmm sunu sëriñ di suñu lépp sëriñ Abdoul Aziz yal kattanal ko yàlla dimbali ko may ko wér moom xaaj ak duudu kenn may yëpp yal dolli leen sutura ba ak seeg jàmm ci barke yonent bi ñu def ko ci jàmm yiw bépp ñu bokk koog réew mi bokk koog jullit yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko téewee ngi ni déwéen yàlla yokk wér gi yokk man gi bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam السلام ربنا يا رسول الله إن القرآن هو البيزان تعرف منه ما حويت من الأشواق والصدم يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقد من طلب بل مفتاح تحترمي